dégg coow si sa écho de livre bi. waa coow bi maanaam fon ci ban boor. Euh, ci diggante bu Siteu ak Gouye Gui. non loolu euh, affaire combat la woon rek xam nga dafa amoon Siteu Gouye Gui ak Siteu bu mag xam nga dañoo am combat. amee combat am benn kii euh, ñuy bàkku safara ak bu Siteu Siteu di bàkku safara di bàkku fële xam nga safara dafa. dafa mën fecc macha allah dafa mën animé aussi et puis xëy am na xamante tuuti ak waa kii tëggal Siteu moom moo ko tëggal poussé ko ba mu wàcc fecc bu Siteu tam fecc ca bu ko defee ñeneen ñii dégg dañ naan bu li tax mu tuddee boppam bu Siteu kon na ko guy gi moytu mais yooyu yëpp passé na ko parce que wax nañ ci lañ ci wax réglé nañ ko xam nañ ne bu sit bu sita guy gi la àndal bu sañoon guy gi mooy daan xëy na na sita parce que li tax mu tudd mu jël turam boole ci leneen faana ko mais lu mu ko faan faan nag lu gën a jege gën a yey nag guy gi moom lay àndal moom lay gis suba ngoon guy gi def ko woon problème mais nun ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi ñoo bëggoon régler problème yooyu ba mu jeex waaw ci boo xoolee ci biir combat bi. kon mën nañu sa kër lépp incha macha allah jàmm léegi. loolu boobu la réglé boobu la réglé parce que buur Siteu dañ ko woon mu arrêté bul ñëw ma mais dañ ko woowaat ne ko ñëwal ci entraînement yi. loolu bëggoon naa nga dellu silma ci. li tax ngeen woon ne ko bul ñëw entraînement arrêté la. non wax yooyu ni mu demee woon la coow li bari combat bu toll nii dafa kii dafa dem fële kër Siteu nangam-nangam fekk na dara amu ci biñ gëstoo ba xam ne yooyu yëpp c'est des c'est c'est des maçons yooyu moo tax ñu ne ko yooyu daal vraiment bu Siteu xale bu jàmbaare la bu gëm li muy def la bien vrai que amul taay bi mais jàmbaar la waaw. waaw Mor Fadam sa dernière tàggatoo. waaw ah, sama dernière tàggatoo mooy li may wax toujours rek di gërëm waa Géejawaay di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp tamit waaw di ñaanit vraiment élection yi nga xam ne ñu ngi ci jublu. ñu def ko ci jàmm ak salaam ñii bu réew mi dañu bëgg a defar ki yor réew mi tamit vraiment mi ngi ci tànki def mi ngi ci yoonu defar boobu ñëw ba léegi mi ngi góorgóorlu la man kon nag eh, su fekkee jëlaat réew mi mooy li gën ci réew mi yàlla na ko jox mais bu fekkee gënul tamit keneen ki keneen ku koy jël loolooy gën ci réew mi yàlla na ko yàlla jox kooku mais daal vraiment ki fi nekk moom gisagun loo xam ne lii Euh, ragal nañ ko ci moom waaw day ñaan rek yàlla def jàmm ci réew mi ñuy may gërëm sama grand frère Bay di Sey le maire de Ndiarème laay vraiment comme li ma koy waxee toujours rek moom politique boole woonu parce que lu mat fanweeri at ak nangam ñi ngi ànd kooku politique boole woonu mu nekk suma mag nekk suma lépp di ma dimbalee di ma jàppale

Euh, ak euh, Pape Seye mi nga xam ne moo ne ci otam te nekkoon mbër ci ek ci écurie njàmbur la nekkoon ba ak école de lutte bi léegi mi ngi ci wetu Racine Talla muy bërëm tamit bay di añ bay di ba meeru Gunaas suma xarit la suma kóllëre la di gërëm daal waa Guédiawaye yëpp wax dëgg yàlla am di ñaan rek ñu gën a jàppale sportif yi jàppale làmb ji jàppale tamit yeneen sport yi parce que man dama naan man ndey ji seex la jaaxaanaay la war a tëdd parce que ñëpp ma jox cër jox ma respect amul benn mbër bu may dajeel mu di ma daw wala di ma moytu muy waxuma xale yi ma yor mais beneen écurie ku ma ci gis cër bi may jox mën naa ne xale yi ma nekkal sax joxuñu ma ko kon ñooñu vraiment dafay ñaan ak yàlla def jàmm ci réew mi di ñaan seen télé bi tamit yàlla def ci jàmm waaw mu jëm ca kanam a lu fi nekk rek sunu géejawaay la waaw ma di gërëm eh, waa géejawaay yëpp waaw di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi euh, mbokki géejawaay info li lañ indi woon tey ndaanaan lañ seet si woon ñu naan ko Père Mor Fadam mbokk yi ba beneen yoon ak beneen ndaanaan